ci fàttali Youssouf daabo moom moo yoroon Tëngéej football club waaye dafa tekki woon foofee ay ndombo tànkam bi mu ko tekkee nag ñépp a ngi doon ruuma ndaan ndaan est-ce que du dem ca jaraaf loolee nag dëggal na ko ndax xaatim na contrat wu ñetti at ci club bii nekk ca Médina di jaraaf de Dakar kon ñetti at yu ñu dëgmal Youssouf daabo moo leen di tàggat ñu jugee ci Youssouf daabo jël doomu Sénégal bii di bullaay Dia moom nag bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano waa Villarreal la ñu bëgg moo di able ko bu Boulaye Dia saison bii ñu génn ci la ko Villarreal jëndee woon ca Reims Reims nag ma nga ca France ca Ligue 1 bu France waaye kat Villarreal nee na ñu li ñu gisoon ci doomu Sénégal bi ba jënd ko doxewut noone ca Liga Santander ba moo tax dañu ko bëgg a able club bi nekk ca Serie A ba tudd Salernitana la ñu ko bëgg a abal ñaari club yi sax jubóo nañu muy Villarreal ak Salernitana abal googee day ànd ak option bu saison bi jeexee waa Salernitana jëndee ko ci lu toll ci onze millions d'euros lépp yemb na gone gi képp moo ci des muy bulaay Dia ndax Boulaye Dia Salernitana gënalu ko moom nag su fekkee nee na waaw rek waa Villarreal dinañu ko abal Salernitana ndax ñaari club yi jubóo ñu waaye Boulaye Dia nee na Salernitana gënalu ko. xibaar boobee Fabrizio Romano moo ko xamle ñu jugee ci bulaay Dia jël doomu poloñ bii di Robert Lewandowski bu ñu sukkandikoo ci Sport Bild li mu xamle moo di kat Robert Lewandowski tey jii ak ca entrainement ya démb dafa tardé tey dafa tardé maanaam moo mujj ñëw te entraînement yooyee muy def sax moom mii di Lewandowski jëmbatu ca fulla su ñëwee nu ko neex lay def te soo entraînement yi jeexee mooy njëkk a ñibbi kon daal li mu bëgg moo di jógee ca club boobee te mu ngi koy dëggal chaque jour kon daal Robert Lewandowski digganteem ak Bayern de Munich soo moytuwul jeex na tàkk ndax li mu bëgg moo di jógee fa entraînement yi sax ni ko waa Bayern noonee muy Robert Lewandowski ñu jógee ci Robert Lewandowski dem ca waa Barcelone ñoom nag ak waa Manchester United juboo nañu ci lépp ngir United jënd Frenkie de Jong waaye kat la ñu juboo bu ñu ko xaymaa mu ngi toll ci quatre-vingt-cinq millions d'euros soixante-quinze millions d'euros yi nag moo di xaalis liquide. dix millions ya bonus la fa yëf ya tàggatémbee kay moo di ci Frenkie de ndax kat waa Barcelone li ñu ko xamal moo di ñun kat amuñu xaalis te xam nañu ne suñu la jaayee mën nañoo am ci yow xaalis moo tax ñu bëgg laa jaay te Frenkie de Jong Manchester United gënalu ko loolu kese moo tardeel mbir mi waaye kat su nee waaw rek Barcelone dina xaatim contrat ak Manchester United doomu pays bi dem foofee jàppale Erik ten ndax gone gi Erik ten moo ko bëgg ci milieu de terrain boobee ñu jugee ci Frenkie de Jong waaye Barcelone googee duñu ko génn osmaan Dembélé nekk doomu France xaatim na contrat bu yees tàq foofee ca Barcelone ci fàttali contrat dafa jeexoon tàkk ca Barcelone waxtaan ba nag yàggoon ndax man na juróom benn weer ñoo ngi waxtaan juba mënul am tey jii nag officiel na yokku na ñaari at wala xaatim na ñaari at yoo xam ne contrat bu bees tàq la foofee ca Barcelone di Ousmane dembele kon moom day wéy di liggéey foofee ca club bi li mu xamal club bi nag moo di bég naa lool te yàkkamti naa saison bi door ma wone sama bopp fii ci Camp naw ndax lu ma am Barcelone moo ma ko gënal loolee nag bu ko waxee dëgg la ndax lañ ko doon fay da ko wàññi ngir toog ca Barcelone ñu jugee ci Ousmane Dembélé jël doomu Ukraine bii di Zinchenko moom nag latéral ma ngay football dugal ca Manchester City bu ñu sukkandikoo ci sa Athletic waa mën sa City li ñu ko xamal moo di wutal club boo dem ndax fiikat soo fi toogee mën ngaa bañ a am temps de jeu loolee tax na nag waa Arsenal ñoo ngi koy bàyyi xel ngir jënd ko yóbbu ko foofee mu doxal gone gi nag lépp Arsenal bëgg moo di waxtaan ak moom ba jubóog moom dem waxtaan ak Manchester City su lépp yembee ñu jënd ko yóbbu ko foofee mu doxal kon nag Arsenal ma ngay deferu ndax demoon nañ foofee ca Man City jël seen attaquant Gabriel Jesus jamono jii nag li ñu bëgg moo di latéral bii nga xam ne doomu Ukraine la ñu jël ko yóbbu ko foofe mu doxal ànd ak Mikel Arteta xibaar boobu sa Atlétique moo ko xam ne ñu jugee ci waa Arsenal jël doomu Sili bi di Arturo Vidal moom nag nekkatul joueur Inter xaatim nag contrat ca Flamengo Flamengo nag ma nga ca Brésil contrat ba mu fa xaatim nag décembre 2023 lay jeex ca club boobee kon moom génn na Europe dellu Amérique du Sud gi nga xam ne fa la dëkk moom nag